yàlla guddal fanam yal na ko fi yàlla dollee bàyyi bi jaahi mu ne képp koo xam ni génn nga àddina ci màggal gi mu ne yal na la yàlla jéggal ci barke borom tuuba radiyallahu anhu radiyallahu taala anhu di ci boole it sunu mbokk mi fi gaañu barki démb rek sant nañu yàlla ba sunu ndaw ñëwee di sunu rakk matal lépp ci suñu tur ak turu kër gi ndax kër gi moom booy def booy def defal jàmm boo defee jàmm ñëpp a koy yëg bu dee leneen it ñëpp a koy yëg ndax fii ni ma koy waxee ay émetteur sans fil ñoo fi am de mu ne kon Serigne si sa taxawaay ba mu fa taxaw ah sant nañ ci yàlla bu baax matal na taxawaayam ci kër gi yëpp bu fekkoonte ne day suñu sañ-sañ la te wér gu gu mën a dem nekk ci man ku ma fa dëgg day xam naa diñ ma waxaale massa waaye nag sa fu sa ndaw dem te mat ko rek yow dem nga alhamdulillah bi nga gërëmee taxawaayam li ci des ñoo ngi yeesal cant yàlla képp koo xam ni yaa ngi ànd ak moom ñu ngi jël nuyoo di ko teg ci sa loxo ngir nga jotalal ñu ko président de la république ndax teraanga bi yàlla def mu teg ko ci sa loxo ànd ci ak waa senegaal ak ñi nga àndal ñun dey ñoo ngi koy gërëm di ko sant moom de xam na ne xamuñu constitution bi nu mu doxee ñun taalibe lañu waaye nag sunu mbokk day ku ko defal teraanga ah loolu sañ nañu toog nag gërëm la ci te yow nag mbokk nga ci kër gi ñii nga fi lim ñëpp itam mbokk lañ ci kër gi mu ne ku baax ki sunu baay Cheikh Al Hadj Mouhamad Ndiéguène li mu jëlee ci Cheikh Al Hadj Ahmad Baro ku mës a teg sa tànk fii doom nga sët nga jarbaat nga kon nag cër bii ñu la jox yàlla na la jik président it yàlla na ko yàlla gën a dimbali ba mu gën a mën a joxe ay teraanga. nanga ko wax ni ko sëriñ mu Muniru nee na moom njabootam yëpp ñu ngi lay gërëm di la sant ci teraanga yi nga jël di ko dugal ci kër diine ji ndax nag ñun dañu amul leneen lu dul diine kon nag kuy njabootu diine ñu jël ay teraanga defal la ko ci kër ga ba say gan ak say koo mën a am bu ñëwee nekk ci teraanga ak jàmm mu ne loolu bu ko defee na yëg mi képp ku nekk ci diine yi lislaam defal na ko teraanga mu ne lii mu sumb ci lu baax ci kër diine yi na ko gën a encouragé mu gën ci taxaw yaa wax léegi ne ku yaakaar kilifay diine ji ndax am na lu yàlla def ci ñoom mu ne kon loole ñoo ngi lay yóbbante yóbbante boobu ngir jëm yàlla ak yonent bi tey jii nag képp ku yàlla dogal nga ñëw fii wóor nanu wóor yàlla ni yéen ñi fi teew ñépp ku ci nekk mën ngaa wax ci kàddu kër gi tontu ci kàddu kër gi surtout nag yow président ni nga meloon ak sa baay Cheikh Al Hadj Mouhamad mu ne sa baay Cheikh Al ma du Ndiéguène sa xarit la bi yàlla dogalee mu génn àddina gouverneur Camara dafa ñëw ci man boobu mooy quarantième jouru góor gi ñépp a ngi toog fees dell mu ne ma Ousmane Tanor daf ma yónni ci yow mu ne ko dafa am teraanga boo xam ni dafa amoon yéene jox ko sa wayjur wi waaye yaa fi nekk sa wërsëg la mu ne teraanga boobu sa baay Cheikh Al Hadj Mouhamad Ndiéguène da doon wax ba tudd jàkka ji mu ne ma Ousmane nee na boo bëggee ñu jox la ko léegi ay millions la mu ne mu toog ma ni ko gouverneur man dey fi mu toll nii ci situation bi ma nekk maa ngi njaboot gi sama baay dafa génn àddina bi mu génnee àddina mu ne ko sama mbokk yépp a ngi toog te sunu baay la mu waxante woon ak président wax na ca ba tudd jàkka ji jëlal xaalis bi delloo ko ci Ousmane neel président Tanor na ko garde bu ma ko génnee pour jàkka ji samay mbokk daañu ma sikk ndax dañ naan indi nañ fa xaalis mu jox ko waa jàkka ji bu fekkente ni jël naa ko yàlla def yàlla def ma jox ko samay mbokk ma jox ko samay mbokk yàlla dina seede yàlla dina seede yonent bi dina seede sunu baay dina seede ne lii nisér la bu ñu niséroon ngir jàkka ji bon nag bëgguma it sunu borom sikk ma sama baay mi ko tuddoon sikk ma keroog gouverneur Camara daa delloo xaalis ba ñu toog ba mbir mi jeex ñu waxtaan ma ni leen comme que Ousmane ñëw na fi nag jaale sunu nañu dem ba ci place amit jaale ko ndax jotiwuñu këram mu ne sëriñ Ahmad Cissé mii cala imaam alxaaji Ahmad Baro mu ne rakkam yi daal njaboot gi keroog sa bureau lañ nga ñu dalal mu ne wax ja la muy bari bari bari dama gëstu wax la ne la man dey bi ma duggee ci sa biro man dey la ma la gën a nawee santee la ko mu ne gis naa fa ca ruq ba bërëb booy jaamoo yàlla mu ne loolu day laa la wax keroog ne ko bi may dugg ci bureau bi mu ne ci àddina bi ku yàlla jox teraanga yu mel nii nga dugg ca biroom fekk fa bërëbu jaamukaayu yàlla mu ne man daal liñ ciy wax yépp nawuma ko de nawloo naa la ci jaamukaayu yàlla ñaanal la fa yàlla ba ñu waxtaanee ba jaale la sa baay nga ni ma sëriñ bi ndax da ngaa fàtte xaalis ma ne ko ana xaalis mu ne ma xaalis baa ngi nii fekk na it sama rakk yépp a ngi toog ma ni la mu ngi fi nga dal di jóg ji ma ko jox nii man la jox ko sëriñ Cissé kër sëñ Ahmed Cissé la xaalis ba nekk ba ma ñëw woo mag ñi ne leen Ousmane Tanor indi na fi teraanga tudd na nag sama baay waaye tudd na jàkka ji yéen mag ñi lu ngeen ci xalaat wax leen ma ñu ne yow loo ci xalaat man leen jàkka ja woo leen commission bi di koy liggéey nañ ma defal devis ci lépp lañ ci war a def yëpp nañ ma ko jox ma jox leen ñu bindal ma bon de sorti moo ngi ma denc ci biir néeg loolu day teraanga jooju moo defaraat jàkka te xam nga ni li may wax nii dëgg la sosuma dara mu ne sosuma ci dara loolu nga def nag ñun nu nag lu dul diine ñun duñu méttinal kenn li ñuy def daal suñu méttin suñu waxtaan mu ne place yàlla bi toog Ousmane yàlla ko yàlla defal nangam ak ku mu àndal ñun nag suñu méttin loolu la de waaye nag na nga yëg ni am nañu mbégte bu baax ndax yow da topp sa rët di bàyyi ci sunu maam mu wàcc si ci alaaji Ahmad nga defee loolu mag ñi xam nee nañu panturon yi ñu njëkk a taxawal ci jàkka ji sa bàyyi ko daan jëlee ca ngeeñeen ak benn taalibeem ànd ak moom andi ko mani leen kon nag bu jëlaatee lii def ko ci jàkka ji wax dëgg yàlla roy na ay waajuram ñun nag li nu am te xam ko mooy ngor ñun du nu nekk nit tey ëllëg ñu nekk beneen nit du nu raayalit kenn gannaawam du nu neexalit kenn ngir alal li nuy wax suma frère yi ma ni leen man alal rendi naa ko xaalis rendi naa ko gasul tiitaluma ci benn côté li may am yàlla laa ko wékk sama wërsëg yàlla sama ruux yàlla du Ousmane Tanor du du président Macky loolu moom joxuma ko benn mbindeef yàlla gannaaw yàlla ak yonent bi nag yéen ñi ngir yàlla akuk mbokk ak responsabilité yi yàlla teg ci seeni loxo ñun nag kuy def lu baax nag sañ nañu nag bu ñu toogee jàkkaarlook sunu boroom ñaanal la yal na yàlla yokk seeni teraanga lii la yàlla jox tu le mérite mérité nga ko te aussi nit ku baax day honnête nit ku baax dafay gore nit ku baax lu mu wax war na ko matal ci ay jëfam waaye foo waxee rek fu mu mettee rek nga dal di daw alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ñii ànd ak yow wóor nanu wóor yàlla la nga doon wax ku ci ànd ak yow la ngeen dige woon yaa nga ca kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi ñaan ci yàlla ñaan ci barke yonent bi mu ne teraanga yila sunu baay Cheikh Al Hadj Mouhamad ñaanaloon ñoo toog mu ne dindi naa yëpp jox la jox na la ay yëpp ne la incha allahu doo torox mukk mu ne alhamdulilahi alamin mu mu mel ni yow jeexaloon nga ci politique sunu borom ñaanu matul te loola ba nga gën a kawe fa nga nekkoon mani respecté leen mag ñi yëf yaa ngi ci mag ñi yëf yaa ngi ci mag ñi kon nag lii mu ne yéen ñëpp ñu leen di gërëm képp ku ànd ak moom ñu ngi lay gërëm ñoo ngi leen di ñaana di ñaan ci yàlla ñaan ci barke yonent teraanga yi xam bis bu jot damay wax ni sama njaboot gi ku ci yàlla jox teraanga ñun ñëpp nanu gore ñaanal ko yàlla jàppale ko ci la ko yàlla jox bis bu jot ma wax ko nit am teraanga bokk ak yow sa xol bi du nangu mu ne billaahi am na benn mag mu ne lii du mu ne am na mag moo xam ni dañuy waxtaan mu ne ma ku la iñaane mu ne boo yoree pepp suuf bët ba montagne lay taxaw ca moom mu ne bu rëy rëy rëy mu ne yàllaa koy nattu bu xoolee pépp suuf ba moom montagne lay gis mu ne kiñaan gi nekk ci loole loolu moom la ma mag moomu waxoon kon nag iñaan na deñ ànd jàppante suturaalante defalante lu baax yow mi yàlla jiital na ñépp nangu ànd ak yow jàppale la yàlla na ko yàlla saxal ñun daal loolu lañ lay ñaanal yàlla li ci des duma lim dara li ci des samay rakk wax nañ ko doléance yi wax nañ ko li ci des mooy santaat yàlla di ñaanal nag sunu maam Cheikh El Hadj Ahmad Baro radiyallahu anhu amiin yal na yàlla dolli ay leeram sunu baay Mawlana Cheikh El Hadj Mouhamadou Ndiéguène ak ay rakkam ñooñu dey ñu leen di ñaanal. yal na yàlla yokk seeni leer Ousmane tanoor man mii su ma yëkkatee samay mbagg ne man la du dëgg day maa ngi nax sama bopp mag ñi ñoo ko liggéey mag ñee liggéey liggéey bi tegal nu fi ñu sol sunu mbubu ku nekk rek defe ni yow mu ne mag ñee liggéey liggéey bi waaw sëñ bi mu ne dëgg la mu ne bu ñu nangoo loolu nag ku nekk di nga gis sa bopp ci mag ñi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin li xam ni yàlla def na ngeen ñëw ko ci seen ëttu baay seen baay Cheikh Al Hadj Amadou Ndiéguène toog na ba tàyyi ak tanoor mii muy wax ni fii palaasu yàlla la waaye yéen a ngi toog fii kenn du fi fanaan fii bu heure bi jotee bu heure tëdd jotee dañ koy tëj bu fajaree ñu ubbi ko ajjuma ñu jàngal Qur'an. guddi àjjuma ñu def latiif ku am problème ñu waxtaane ko sëy fii lañ koy takkee lépp lu baax fii fii mën nañu waat ni nit mësu fee mooy yàlla ndax sunu maam alxaaji ahmad borom mu baax mi dund na ci dëkk bi cent onze ans te ci place bii la ko dundee mu ne ku baax ki cheikh alxaaji mouhamad dund na ci dëkk bi cent sept ans fii la ganee àddina génn ko ba dem barsax mu ne góoru yàlla yooyu fu ñu jaamu yàlla at yooyu ñaan fa yàlla waaye xam nga ni loo fa ñaan yàlla dana ko nanguwaay yàlla soxorul kon nag alhamdulillahi rabbil alamin li yàlla def yal na yàlla saxal teraanga yi mu ne ñii ngeen àndal ñuy sunuy frère mu ne ñii di sunuy sœur képp koo àndal ci gàttal daal gërëm nañ ko sant nañ ko ñaanal nañ ko yàlla alhamdulilahi rabbil alamin amiin sëriñ bi nee na yàlla nañ ko fekke déwén bi jaahi rasulullah